الأنبياء من لا شريك له وفي وما للوعد لذيك يا الله وجاتك اليوم يا رمان مهتديا فوزي بما ستوفي دنياك يا الله أنت رئيم راسي أجوا برامتي ألا ألاقي درا منك يا الله أزاري ملاسي أجوا برامتي ألا ألاقي درا منك يا الله مليك يميني وقلبي بزول يا مليك بلا إسان بن بيجو دل منك يا الله خدست سري يا قدوس متليا علي وعن كرادي تدار يا الله أنت سلام لاسي سلم تكن يا من ويوبنا سيبيتي منك يا الله أنت سلام لاسي سلم تكن يا من ويوبنا سيبيتي منك يا الله يا مؤمن في جنة بدر ما كدار وابلي أمنا في الدارين يا الله وبالمؤمن Et je confirme encore qu'il y a grand potentiel au Sénégal. Je, veux juste euh, un rappel de notre euh, introduction au Sénégal. C'était en 2014, pour exporter du Maroc vers le Sénégal. Mais lorsque nous sommes venus ici, on a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

Et si on prend aujourd'hui l'exemple de Minam Export, euh, c'est un leader national il fait un exemple. Parce que, à part Minam Export, que moi je connais Sénégal, la plupart c'est des gens, euh, dire que ce sont des investisseurs étrangers. Et on peut les lister problème. Hein. Ils de groupes qui entre 100 à 1000 hectares par, par groupe. Mais en tant que musulman, en tant qu'Africain, J'ai beaucoup d'amis ici au Sénégal. Je, encore, je renouvelle le, C'est le seul moyen d'absorber le chômage. Comme je t'avais dit, la première année où j'étais au Sénégal, c'était en 2014. pas le hasard que je reste au Sénégal. La voiture que vous voyez de trois mois en Afrique. J'ai passé par la Mauritanie, Mali, la Guinée jusqu'au Côte d'Ivoire. Et après, j'ai choisi le Sénégal, c'est pour beaucoup de raisons.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 Serigne Mountakha Ndiaye Gabon El Hadji Fallou Sil nekkoon ci kàddu gi ñaanalaat Serigne Bassirou Mbacké moom Serigne Xaadim mu yàgg fi loolu tànn ak wér ñaanal ko xalif général des Mourides Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou jërë ngeen jëf salaatu fi kulli sayrin wa fi safar hamani hala mahin mal absa wa safar